الباقيا يا ابن الذين منهم مريق الباقيا بالسور والخدمة إنسان بيا يا وقني سمي عن السياح Ya ya ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ci baati ci nuyoo ba gën a tedd ba gën a sell di leen wax ahlan wa sahlan wa marhaban bi daari kumo yaa ahla mendu maxtaar jaxate sëriñ jaxate ak Omar Niang ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen wax ni waaw yegg leen fii nii welcome ci sun atti xol bëgg nañ ci jotaay bu wér ak cant lañuy jóoru seen jotaay bu jekk bii bu sell bii ci seen exposition bii ci Baye Cheikh Anta Diakhaté fii nii ñi ngi leen di bëggee bu wér a wér di leen wax ni dëkkub tranga baa ngi di dëkkub alxuraan bii fii taalu jàng yaa ngi fi ni xus foo foo foo gestu rek ñepp ngi jor alcorane ji ñepp ngi koy jor gonek mak gonek mak ñepp koo ci lamb ma nga fees del xam-xam kat yi di yar njabot gi ci diine l'islam ba nga xam ni saytaane ci ñoomu yoon kon ñi ngi bég lool sun jotaay bi exposition bi nga xam ni dañ ko def ci baye cheikh anta jaxate mi nga xam ne moo nekk ñetteelu xalifa abdourahmane jaxate mii doom ci sëñ Modou Asta Diakhaté mi ñuy cantal tey jii ñu fas yéene ne nag présenté exposition boo xam ni comité culturel bi nga xam ni dafa bokk ci biir daa daayiratu Taysiroul Assir nga xam ni Omar jaxate moo ko jiite ñoo leen defaloon liggéey bii ci Baye Cheikh Anta jaxate nga xam ni day wax ci ak ganeem jamono ak fan la ganee jamono ak tur yi nga xam ni Serigne Saliou Mbacké moo ko jox mu tedd ma nga xamni mom lañ ko waxon mu tuddé ko bopam mu wëlbe Serigne Sall wëlbe ko tuddé ko Mam Cheikh anta Gawan muy tur wo xamni Serigne Sall ci bopam moko ko won ngir di fay Mam Cheikh anta lum ko lebaloon ci tiranga kon tay ji lolou para ñuy para sante len fi kon ñu wax Serigne jaxat rek mu ñew inshallah allah wax ñu exposition bi nu mu demee incha allah. ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar euh, di yëkkati sama kàddu rek di ko fii Aliou daanelee di siyaare ñun seqal commission culturelle bi yëpp. Euh, commission euh, exposition bi nag ñu ngi ko jagleel maam Cheikh Anta comme ni ko Aliou waxee di kenn ci mag ñi nga xam ne wutu nañ Serigne Abdourahmane Diakhaté ci jataay bi di ñetteelu xalifaam. exposition bi nag dafa am euh, euh, départ bi dañ ko def tradition arabe ak ci français waaye li ci nag dañ ko def ci langue wolof euh, bi ci li li ñu li ñu njëkkal li ñu njëkk def nag mooy nettali lenn ci aw askanam indi ak gane jamonoom ak ak ak aw turam ak sababu sababu tur wi indi lenn ci ay jikkoom dundinam indi ci beneen côté bi ay kàddoom ak yu ni mel li nga xam ne ñu moom lañ leen di présenté nag mooy mooy mooy aw askanam wi nga xam ne ci la bokk muy njaxate euh, dañuy tàmbale rek ci maam Cheikh Anta di doom ci Serigne Abdourahmane Jaxate Serigne Abdourahmane Jaxate nag doom la ci Serigne Madou Asta Jaxate mi nga xam ne moom mooy mooy jur ci sëriñ Serigne euh, Amsatu Jaxate mi ñu miinoon ci wetu Serigne bi di jur ci Serigne euh, Sëñ Balla Serigne Alsaan Sëñ Mbàkke Jaxate soxna Fat Jaxate mi wayjur Serigne Saliou soxna Mariama kon ni ma ko nettalee woon léegi kon kenn ci njaboot boobu moom la ñuy jagleel lii tey di doom ci sëriñ maam si Anta nag di doom ci sëriñ Abdourahmane di doom ci sëriñ Madou Assa Diakhaté di doom ci Masata Binta Dun di doom ci Madun Kala Diané di doom ci Masata Baba di doom ci Baba Xëri Ndiaye di doom ci Assane Koungou Sëgg Ndiaye di doom ci Yëri Tako Thiam di dool ci doom ci Moussa Farimata di doom ci Lamine Yoro Khoudia di doom ci musaafari mata di doon ci Amar Kaba Amar Kaba nag di maam ci ku lu ku bokk ci askanu Jaxate soo ko rombee da ngay daal di génn Sénégal kon mbind mi dafa sew waaye boo gisee càllale gi ñuy njëkk def nii moom lañ def Amar Kaba musaafari mata Lamine Yoro Yérita ko Alsaan Kumba Baba Xari Njaay Madunkala euh, Masata Bindadun Madou euh, Asta Jaxate Cheikh Abdourahmane Maam Cheikh Anta geneen càllale gi nag ñu ñëw wax li ko boole mewndu ak lappe fii nag boo nee Maam Cheikh Anta da ngay wax sëriñ Abdourahmane sëriñ Modou Asta Masata Binta Dum Binta Dum Touré Makhoudia Touré Khoudia Diakhaté Alsane Koumba Yéri Tako Lamine Yoro Moussa Farimata Amarka Ba di lu ko dugal lappe gii nag ndemeen la bii danga naan maam Cheikh Anta si Abdourahmane soxna jëng si la soxna jëng si la nag moo jógee ñaxal euh, ñëw mewndu am fi si euh, Abdourahmane am fi soxna Fat Jaxate am fi soxna Mariama Jaxate am fi sëñ am sut am fi sëñ alsaan sëñ Mbàkke sëñ Balla eh, soxna jeg si la moom nag eh, way juróom jigéen di Mariama Jaxate mi jógee ndemeen Mariama Jaxate way juróom ma joojoxu jagay di ay meeru ndumbe yéeri jay na ba ngom yéeri tàkko ci am Lamine yoro Moussa Fari mat amarka ba kon lii dafay day wone rek eh, li mu bokk gi mu bokk ci njaxate ay yooni yoon li ko boole ci penc yi diine yi lislaam yi nga xam ne mi ngi ci mbaakol muy li ñu wër di ci la dara maan di lappe di longoor di ñaxal lépp ni ci bokkee fii tamit day wane càlla la kër way juróom wu jigéen ndax dañuy wax ne euh, baayam mooy nijaayam nijaayam mooy baayam loolu li koy misaal mooy way juróom wu jigéen dafa sotoo ci askan wi way juróom wu góor sotoo ci amarka ba fii boo ne maam Cheikh Anta euh, daa naan euh, soxna Absa Jaxate mi way juróom ñu koy wax Absa Awa Gaye dem Masamba Soxna Mbay Masata Roqaya Abdourahmane Jaxate Maxtaar Tidjër Jaxate Masata Baba Baba Xari Ndiaye da nga daal di duggaat ci ci ci ci même càllale gee nga ñëw Assane Koumba Yërita ko Lamine Yoro Moussa Farimat Amar Kaba nag mooy mooy mooy maam ci ci ci ci ci ci askanu Jaxate yëpp euh, jógee woon Mali dëkk bu ñuy wax Kaba am ñu wax ne jaar na Mauritanie am ñu wax ne jot na euh, Mauritanie la njëkk jaar bi mu bi mu ñëwee Sénégal nag jaar ni jaaree ci Louga jaar ci Fuuta euh, fi mu jaar fi mu jaar euh, fépp am fa njaboot bi mu fa am baag si fii mu baag si fii mu agsi kon moom lañ moom lañ leeral fi muy yow askanam ak gane jamonoom nag ak gane jamonoom nag euh, moom lañ leen doon doon doon tëkkal fii muy mu gane jamono ci atum mille mille neuf cent vingt-huit di at mi fi sëriñ bi jógee ba ba ca déwén sa di 15 octobre 1900 28 moom la ñu def nii ci ci ci tradition arabe bi ñëw ci français bi waaye lii nag ci olof bi la octobre 1928 wooy juróom sëriñ Abdourahmane bi mu gënee jamono nag sëriñ sëriñ Abdourahmane dafa wax sëriñ Saliou Mbacke ne ko gan feeñ na ci kër gu boo xam ne bu ma tudd na nga tudd tudde ko sa bopp waaye sëriñ Saliou dafa daf ko tudd maam Cheikh Anta sëriñ ne ko mu ne mënoon nga koo tudde sa bop ta du tee mam si xarit am aw turu boppam mu ne ko mam si da ma lebal tiraanga jo xamné munu mako fay mam cër bu toll ni ci askan wi ma bokku muy sama di sama deret muy cër bi ma jëk am ma du mo taxan ma delloo ko ji jamono yi nak mi fekk Serigne Saliou ci ginnaw bi fi Serigne bi joggé ba ca dewen sa mu tàggu Cheikh mustapha ngir ñew mbakol sakku ci xam-xam bi mu ñewé nak da doon ci la dara di ñibbisiwaat meew mi loolu ci at ci diggante boobu la la lii am ginnaaw bi mu jógee ci la daramaan nag di dem ay nu numaan jaxate euh, di fa di fa di fa di fa eggale njaamum xam-xamam booba nag xam naa digg diir bi xaw naa sori tax euh, maamam santaane ñi defal ko foofu ab pour mu féete fa ñu ko fa yóbbal xéewal yi nii jëfandikoo ci année yooyu nag la Serigne Saliou te loolu nag bu ñu ko xoolee euh, Serigne Saliou wax ne mooy cër bi mu njëkk am booba ay atam bëreegul ndax ci atum eh, bo xolé ci atum 1914 eh, bu Sëñ Sall gëné jamono entre 14 1915 ak 1928 lool day fek Sëñ Sall day nek ci moyen de 20 eh, ans ci digënté bobu kon mi ngi mi ngi ci moyen de 20 ans ko xam-xam kon bobu moy tour bi nga xam ne la naroon jëk am waye dafa jéglél jagleel maam si Anta pour pour pour pour délo ko njukkal bi mu gëné jamono nak 1928 at yu neew lañ ci tek bi mu da jang alquran Serigne Madou astadiakhate di mamam moo ko dalal jàng moom ak kenn ci magitaali taalibe yi Serigne Bassirou Sall ñu leen di ñaan suñu borom yees na seen yërmande moo leen daal alxuraan nee na kero ñaan tifli seen bopp ginnaaw bi nag ñu jox ko ku ñuy wax Serigne euh, Assane Diané moo ko jàngal alxuraan bi nag waaye nag mi ngi eggaleem njàngum alxuraanam mi ngi taree ci euh, magam di Serigne Omar Jaxate mi nga xam ne moom la bokkaloon Serigne Abdourahmane ci moom la taree alxuraan jang xam-xam ba geejju ci xam-xam ci fànn xam-xam yi nga xamne geejju na ci yépp euh, ginaaw loolu nak bi fi waajuram bàyyi mu top serigne am sëtu jaxate don ko terbiou diko diko top ko ko won ab ab ab mag waye da ko jàppe ab ab serigne euh, bi fi serigne am sëtu jógee nak ci 1900 1800 1984 serigne Omar jaxate wutu ko fi non la ko topé non raw ni mu topé won serigne serigne am sëtu ba ci 26 euh, septembre 2002 lépp mi ngi si biir exposition bi ci la ci la fi Serigne Omar bàyyi ko mu tombé fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru weeru rajab Serigne Omar Jaxate daal di wuy ji eh, boroomam fekki magam yi ak seen waajur wa mu daal di toog nag doog a toog toogaayu euh, juróom wa war a njaboot bi ginnaaw loolu nag ci la lenn ci dundam yu ci bari euh, melooy tasawuf yi mu doon dund ak lenn ci discours am mi ngi ñu présenté xam naa kon Omar mu ñëw tali pour leeral li li nga xam ne moo doon ay meloom ak ay jikkoom incha allah yaa ngeen jëf. jërëjëf Serigne Serigne Jaxate leeral yi am na solo li nga na nañ wane na ni kan mooy Baye Cheikh Anta wane nga kan mooy Baye Cheikh Anta ginnaaw bañ ko defee ci ay mbind ba pare gën nga koo leeral ba mu gën a leer wane ni kii mooy jëmm ji nga xam ni moom wax moom lañ bëgg nit ñi xam xam mooy xam mooy kan ndax njariñi kese la feese. ginnaaw bi mu wax nga ci ginnaaw bi mu gënee jamono ba niñ ko ba ni ko sëñ Abdourahmane joxe tur sëñ Saliou ngir mu tudde ko boppam mu wëlbati ko tudde ko maam seex Anta ngir booba féete gu mu féete ndaw ginnaaw loolu ñëw nga ci ginnaaw bi bi sëñ Abdourahmane bàyyi ko ba mu ni mu ni mu toppe woon sëñ Abdourahmane déggale ko ginnaaw bi mu toppe ni ay magam ndax ndénkaan la ko sëñ Abdourahmane dénkoon ci sëñ satu loola da koo sàmm ba sàmm ko ba topp ko ba ba ñu fi sëñ Omar nekkee mu sàmm ndénkaan loola ba ba dara ruuru ca ba ni xilaafa gi yegsee ci moom ba ni mu doon jëflante ci digganteem ak taalibe yi jëflante muy jëflante bu rafet bu boo xam ni ku nekk mën nga cee mën nga cee jël exemple boo xam ni di nga ci di nga ci jariñ ndax moom njariñi kese la woon amul benn lor daan jariñ taalibe yi ba pare di leen bàyyeeg li nga xam ne moom la ñu yor di leen jariñ ci alalam di leen bàyyeek seen alal kon kooku njariñ kese la feese dinañ ci dinañ ci xam lu bari ginnaaw bu suñ Omar ñëwee présenté ñu lenn ci ay jikkoom ak lenn ci ay kàddoom yoo xam ni mën nañ cee jëriñ waaw bisimilah sëñ Omar leen gànt ñëw ci ñëw ci Serigne Cheikh Anta ak lenn ci ay jikkoom ginnaaw bi ñu xamalee aw cosaan lenn ci aw cosaan cosaanam ak i maamam nga xam ne day wane ne kon askan wu tedd la bokk waaye ginnaaw askan woowu mu bokk nag daf ko laxasaayu ngir xam ne inna akramakum at atqaakum looloo tax nag ñu bëgg a ñëw nag lenn ci ay jikkoom bu nu waxee lenn ci ay jikkoom nag mu doon mu nekkoon koo xam ne ku tabe la bëggoon mbokk ak i dëkkandoo yaatu xajoo ñëpp bari lool yërmande ci mbindeef yi bañoon na lool jàmbat ku gëmoon yàlla sunu borom daa ko wéetal fonk sarixa lool di jàmbaar ju mag ci jaamu yàlla ak liggéey ak yeneen yu ni mel kon li ñuy wax murit saadix moom ci kanam dana ñëw nga xam ne doonoon na loo xam ne am na ko waaye nag alxuraan dafay wax ne wal baladu tayyibu yuxriju nabatuhu nga xam ne ñenn ci danañ ko firee ci ne askan wu baax ci la ci lan ci lan mën a amee nit ku tedd wala jiw wu baax mooy meññ mooy meññ meññeet mu meññeet baax jikkoom jikkoom yu tedd yooyu na tax na tax na ñu bari naw ko mu doon ko xam ne fonkoon na lool julli ci mbooloo fonkoon na lool julli ci mbooloo di sunni daa saxoo wird ak a julli guddi di jaamu yàlla ak liggéey la boole woon yorooni dongo alxuraan la daa gàggantikoo daawul jàmba dara ci lum mën a doon te daan ko tere daana saxoo muñ ak sant yàlla sunu boroom daa fonk mbokk ak dëkkandoo ngir yàlla di leen jariñ jiñ seeni lor ngir yàlla uhibu makaarimal axlaaqi juhdi wa akrahu an uhiba waan ohaba sopp naa jikko yu rafet yu tedd jikko yu rafet yu tedd yi di leen di leen roy sama kem kàttan waaye itam bañ naa lool di ayibal kenn waaye wala kenn di ma ayibal kon moom foofu la nekkoon mu doon koo xam ne ngor ak diine moom la sàlloo woon ginnaaw mu doon koo xam ne ngor ak diine la sàlloo woon ginnaaw nag ak ci ñi jëm ci li nga xam ne mooy ak taalibe mooy ni mu toppoon ay magam ñi ñëwoon si li nga xam ne moom li nga xam ne daf koo toppoon ay magam bàyyee lépp boppam ngir ak taalibe nga xam ne feeñ ni mu bàyyi woon xel ay magam ci ak taalibe gu mat goo xam dafa bàyyi woon lépp nga xam ne mel nañ ko bëggul dara nga xam ne dafay wane melaw murid saadix bi nga xam ne Serigne Touba wax na ko melaw murid saadix bi nga xam Serigne Touba wax na ko buñ xoolee yëpp dafay mel ne dañ koy gis ci jikkoom jikkoom yu tedd yooyu li koy bokk na ci bokk na ci yenn ci ay kàddoom bu nu ci fi nga xam ne lenn ci ay kàddoom ñu mën caa jàpp kàddu yërmande yoo xam ne yaatu woon na lool mu di ko def muy faral gi mu daan faral di faral gi mu daan faral di soññi ja soññi taalibe yi ci jaamu yàlla sunu borom ci kennal ko waaye fonk mbokk ak dëkkandoo ak wattandiku àq ak yu demee noonu nga xam ne dafay wax ne lépp loo xam ne ab taalibe jox na ma ko ci liggéey Sëriñ tubaa bii laa koy def waaye du ma woo kenn ci sama liggéeyu bopp wala sama wàllu bopp dafa jàppe boppum koo xam ne dafay liggéeyal jaam ñi waxtu wu nekk ñi ñëw nag lenn ci nga xam ne ay kàddoom la bi ci gën a bi biñ ci gën a tànn nag mooy bi mu defoon ci màggaluk 2011 muy cantuk daara muy doomu 2011 mu wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen mbokki jullit yi yéen mbokki taalibe yi yéen yéen mbokki taalibe yi di njabootu Seex di njabootu lislaam seen seen soppe seen jawrin di di Seex Anta moo leen di nuyu di leen siyaare di barkeelu ci yéen ci bis bii di leen di leen ci sant di leen di leen ci gërëm ci li ñu weesu ak li ñu dëgmal li ñu weesu li ci gën a teew muy xelkom ji ñu jugee buñ fàttali mooy xelkom ji nga xam dafa sosoon ci cant muy année 2011 mu ne ginnaaw loolu itam sant na mbokki taalibe yi sant mbokki boppam mu ñëw nag li ko tax a jug muy ci li mu doon waxtaane muy jëm ci kennal yàlla sunu borom mu tànn ci aaye bi muy wama xalaqul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yuthimun inna allaha huwa razzaqu zul quwwatil matin mu wax ne nanu xam mu ne ginnaaw bi ma leen dénkee dénk sama bopp fàttali leen fàttali sama bopp nanu xam nanu nanu xam yàlla sunu borom mi ñu bind ak lu tax mu bind ñu ñu bindee ba wàccee ñu fi lu tax mu wàccee ñu fi ak lan lan fi war a def ak lan mooy li nga xam moom la war a def yàlla sunu borom moom nga xam ne yàlla sunu borom moom nga xam ne mooy ilaahun waahidun laa ilaaha illaa anta nga xam ne amul benn buur boo xam ne jaamu la jaamu la dana jariñ kenn ñàkk laa jaamu dana lor kenn kudul dul ilaahun mooy buur bi nga xam ne jaamu ko ñàkk ko jaamu ku ko jaamu mu fay la waaye ku ko jaamut mu alag la kooku mooy ilaahun waahidun mooy yàlla sunu borom mu ñëw nag ci yàlla sunu borom moom nan lañ ko war a toppee mu ne kon war nañoo gëm yàlla topp ko kennal ko topp yàlla nag mu ne yàlla yàlla sunu borom moom nag yomb naa jëflanteel ndax koo xam ne boo ko jëfalee benn mu fay la fukk boo ko jëfalee benn mu fay mu fay la te benn sunu borom mu misaal ko ne lu junni yi nga xam ne moom moom la ñu yor ci xaalis di ko jëfandikoo kon kooku yomb naa jëfandikoo jëflanteel waaye nag yàlla sunu borom de naxul kenn mu yàlla sunu boroom naxul kenn xañul kenn itam ndax man jaa bil xasanati fa loo xasru am saaliha yàlla sunu borom naxul kenn xañul kenn mu ne kon nan topp yàlla nan jaamu yàlla sunu kem kàttan nan topp yàlla nan ko kennal topp yàlla nag moo ku topp yàlla topp nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ku topp bi sallallahu alayhi wa sallam nga sëriñ Touba. mun naan sax ci diggante boobu te xam ne loolu moo tax yàlla sunu borom sunu borom bind ñu ñu ñëwaat si li nga xam ne beneen euh, fàttaliku boo xam ne wax na ko muy lenn ci ay kàddu yoo xam ne dafa fees dell ci yërmande muy soññ taalibe yi ci ne di leen sant ci ne yéen daal bu mucc dee genn ci foofu la taxoon mu ne bu mucc dee genn moom féetal na ko féetal na ko taalibe yi waaye njëriñ itam bu dee benn féetal na ko taalibe yi. kàddu yi rafet na jot na am na solo li nga leeral. leer na bu baax ñu ngi la ci sant di la gërëm ci fasaaxa bi nga ci am ba leeral ko mu mel ni ñu ngi ciy déggee melaw murit saadix dëgg-dëgg naka la mën a naka lay mel mu mel ni bu doon mbubb la boo ko solalee Baye Cheikh Anta day yem ci moom te boo doo ko doo ko mën a sololaat keneen kon moom murit saadix gi mu nekkoon ni mu toppe ay magam ni mu toppe ay waajuram toppe ko ay magam ba ay seede yu baree bari ñu def ko ci moom day wane murit saadix gi mu nekkoon ginnaaw loolu tamit nga ñëw ci aw meloom nga xam ni ni nga ko waxee noonu ci wàllu tasawuf ni ko sëñ Touba andee ci masaalikul jinaan nga xam ne leeral nga ko ba mu leer naññ ku ko dégg rek day mel ni bàyyi seexanta Anta la ñuy waxal ndax moom sumtun wajoon tawilun bax doxoo saharun jooju sëñ Touba di wax day mel ni moom moo ko jagoo ndax lu baree bari mag ñi seede nañ ko ci moom ba ci bàyyi góor mi ñu jóge ci moom léegi nee na li leen jaaxaloon ci moom mooy buñ mësaan nekk ci àll bi di bay doo ko gis mukk mu lekk te ñoom ñëpp moo leen mënoon ci tool yi te doo ko gis mukk mu lekk kon loolu day wane maanaam jëmmi tasawuf ji nga ji nga wax ci moom moom mooy Baye Cheikh ci boppam mooy jëmmi tasawuf waaw Baye Cheikh ci moom mooy jëmmi suuf yi di tasawuf mën naa la cee firndeel lenn man bi nga xam ne dafa ma daan kale buñ ma bu ma ko masaan a nuyu mu dafa naan ma ba nga xëyee ba léegi loo lekkagun ma ne ko man de añ naa naan naa ndox mu ne ma man de ba ma xëyee ba léegi benn kaasu kafe wala benn kaasu ndox moo duggagun sama gémmiñ kon kooku day wane ni sumtun wa jiwahum tawilun jooju sëñ Touba di wax kon mu ngi woon ci moom kon li nga wax am na solo lool li nga wax ci ay jikkoom tamit jikko ya loo xam ni jikko ya loo jikko la yoo xam ni ku nekk mën nga cee roy ba raw sag maas kon daal ki ñuy présenté ki ñuy waxtaane mooy koo xam ne njariñ rek la feese kon sëñ Maxtaar Jaxate bu ko defee nga dikk defal ñu tradition bi nga xam ne defoon nga ko ci araab ak ci français nga dikk tënkal ñu ko rek incha allah wa rahmatullahi taala wa barakatuhu alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli saddit lisaani nawir janaani safi amaani wasit baraa'i barkeb Seexul Xadim mbokk yi ñoo ngi leen nuyu baax a baax di leen siyaare di soof suñuy kàddu ci kàddu sëñ Alimaane Diané rek di rafetlu bu baax a baax liggéey bi ak sëñ Omar ak euh, sëñ daam bi nga xamee ni si ne ñoo nekk ci comité culturel daayira Taysiroul Assir ci ndigalul Serigne Omar As Jaxate di leen rafetlu bu baax a baax liggéey bu mat bu matale bi nga xamee ne si ne boobu ba léegi ñu ngi ciy nab nabi ba mën a géndeendi résultat bi woo déggee ma ne mën a géndeendi résultat bi mooy lii rek mooy point de départ bi waaye incha allahu rabbi am nañ ay objectif yu rëy rëy rëy ci jëmm ji nga xamee ne si ne moom lañ jagleel exposition bi maanaam nag liñ bëgg a leeral ci exposition bi mooy Mamadou Assa Diakhaté mi nga xamee ne s ne moom moo sosoon dëkk bi dafay nekk bay waaram ba dem ab xalifaam toog fi muy sëñ Abdourahmane bay waaram ba dem sëñ Amsatu Jaxate ñëw toog bay waaram ba dem sëñ Omar Jaxate ñëw toog bay waaram ba dem ñoom ñëpp ku ne mat na matale na waaye boo gisee commencement bi ak point de départ bi ñu def ko ci maam Cheikh Anta Jaxate mooy ñi nga xamee ne siire ñoo fi nekkoon def exposition bi prépa santé li lépp kum ci man di doon ñii moo leen tudd ñii moo leen ngénte dalal leen ba jàngal leen ban def ci ñoom xam kon te de wolof day wax ne bay ci say wóom moo tax rek ñu commencé ko ci maam Cheikh waaye incha allahu rabbi dinañ ko lawal ba yeggale ko ci Mamadou Assane waaw loolu moo tax itam bi loolu amee ñu xam ne si ne lépp loo xam ne si ne da nga koo wax day dem waaye lépp loo bind day des comme ni ñu ko sëñ Touba jàngale te wax moom day jeex waaye bind moom day des parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñ digganteem ak moom ñaari junniy at yi tuuti moo ci manqué lam fi doon wax ay hadis su fekkoon ne mag ñi dañ ko doon wax saxaaba yi di ko jàppante mën naa am du yegsi ci ñun boo gisee ñu am ay hadis ak ay wax ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam mooy mbind mën ko bindoon ku ñëw yeesal ku ñëw yeesal ku ñëw yeesal ba mu yegsi ci suñu loxo kon ñun itam loola rek lañ jublu ci yaxal li nga xamee si ne moom lañ xam ci jëmm jooju muy maam Cheikh Anta Diakhaté bi loolu amee tam moo tax te xam-xam dafa xew gëstu dafa xew kon lu mu mën di doon rek war nga koo teg ci ay xam-xam bu leer a leer a leer looloo tax biñ ko defee wolof ba pare ñu góorgóorlu bu baax a baax def ko français mébétum ñi nga xam ne si ne mooy communauté culturelle bi mooy dem ba euh, lii di point de départ bi point d'arrivée bi mooy dem ba dañu am livre boo xamee ne si ne day nekk ci bibliothèque yi nekk gën a mag ci àdduna bi livre maam Cheikh ba dafay dem waaw loolu nag ndamam la ak liggéeyam ak li waliyu moom mbiram moom day euh, commencé rek waaye kenn xamul fa mu yam parce que ñi nga xam ne si ne ñoo nam nebee lii génn fii lii ci xam-xam te ku ne xam ne lii liggéey bu rëy la ànd naa gëstu bu coono ak lépp waaye tout tànk yoo xam ne ñëpp ci kippaaram ci suufam lañ yaroo kon loolu barkeb liggéeyam la rek te ay ndaw lañ yoo xamee ni si ne macha allah yàlla leen suñ borom taxaw bu guddal seenu fan yokk seen xam-xam ba li nga xamee si ne moom lañ bëgg dem ba buñ ñëwaatee fii di def exposition mu nekk ab livre boo xamee si ne day nekk fii mën a nekk ci bibliothèque yi nga xamee si ne waxuma la bibliothèque yi Afrique waaye bibliothèque yi nga xamee si ne mi à travers tout le monde ñëpp di ko jariñoo parce que kii liggéey na liggéey bu rëy boo xamee si ne luñ xam ci kenn ba koy wax ci moom bay def ci moom livre rek jàmbaar ji def na te ñun moom lañ jamonool xam li ñu wax ci moom loo xamee si lu mu mën di doon rek yow mi koy wax mën nga ne lii maa ko dund moom làmbatu ko ñu bind ko bàyyi ko fi ba bu ëllëgee buñ fi jógee suñuy doom suñuy sët man koo jariñoo loolu rek lañ jublu ci lii ñoo ngi jéggul wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin jërë ngeen jëf fa iskay na iskay de lay njëkk a wax ci tool bi nga ma woo siñ aali naa ci bay ku may woo ci way seexi anta woo nga naar ci guuxum soow siñ aali tey ñu way way yu rëy ku tëddoon na toog ku toogoon na nekk ñu digtal ko ay way yu neex ba nit sëriñ Ali ki ñuy bëgg a way moo di kan ci tànneef yu baax yi fi nekkoon ba way ñëwal wax sëriñ Omar ki ñuy bëgg a way waa ci waa Njaxate la sëtub Moodu Asta sëriñ bee ko duy turandoom moo di maam Cheikh Anta Gaawaan da daan dàkk mbégtam ka meññ kay sëriñ am satoog sëriñ Omar la jàppe woon ay sëriñam ba làq seeni ngërëm def mbër mu rëy ñewal wax ma fum feñ ak an ma yit ñewal wax ko ci tënk nay dooni way jam xam nga fi sunu mam odu asta nekkon la gané jamono dib jant muy leral fi bank ti ba ca ngay ta nenañ ba cheikh anta feñe serigne abdourahman da wax serigne salihu niko gan feñ na ca kër ga nang ko tuddu ta tudde ko sa bop tay serigne salihu ko tuddu kérok tuddu ko maam cheikh anta ne tiranga jum ko lebalon lay sakko fay ku jangal ko la bëgg xam ndax te mom ku feesoon la xam-xam ne teenam du déy bu daa wax dafay feese delli xikam te bu buy jëf ku koy gis dal ne iskay ba muy am at yu néew ba muy am at yu néew la dal ca ca maamam Moodu Asta mi ñuy sant le boroomam kookaa ko ko may sëriñ Abdourahman baayam ba it jàngal na ko te sëriñ Abdourahman du jàngal ku bur na te fay ka ñuy wax sëriñ Asan it jàngal na Seex Anta ci moom la wat te daanan fa bay magam sëriñu Amar Jaxate it jàngal na ko li lee tax ba seex antay baxaru kay ku fi laaj na laaj na laaj gaa ñi xam siñ aali siñ aali danga xam ki ñuy woy bu wér kon ñu woy ñëwal xuus ci gaaluk tasawufam gi te wax nag ñu lan lan la daa def ba nuy naw ko tey sumtun wajuhun tawilun baxdahu saharun li lay melaw Seex Anta boobee ba tey amoon nay ngërëm magam yu baax yee dañ koo gërëm wóolu woon ko jox ko seeni may wóolu woon ko jox ko seeni may tax pas-pas ba mu amoon tax na mu ni woon ba mu gisatul magam yu baax ya la door a am sëriñ bu sant mbàkke kay daan moom daana dimbali daana dimbalee moom alal daawu ko xëccoo kenn daa fekkoon jaamu yàlla te daa dunde mbay woyof gam woyofal àddina tax na foo ko fekk col gu ñuul la daa sol daawul xaftaanoo ko daraawu cey daawul jàmbat te daa daa tere ku koy def booy jàmbat fi moom mu lay yéem ngir ngir daa ami may bu nawet masaana gàntu sax da daa fàttali aaya ja yàlla wax wa maa min daabatin ba ca risqohaa ja omar kon ñu wéy sëriñ aali man dama yéemu tey daanu naa ci lii nii nga wax ci seex anta man de nee naa la cey amul kem amul kem ne seex anta mi da géej gu fees dell bay baa ko duy di ab tab de daa jaamu bur yàlla moom ci toolub muudu xasta lay xëy di bay serigne xamar ñu jox nit ñi ku dig dajé kon ñu ñew ak yenen yalla bu ñu mot ray nambur yalla fay ñi fi nekkon dig dig loo sakku barke tay allahumma salli ala sayidina muhammadin wa salim ñi ngi leen di gërëm bu baax di macha allah na yalla yàlla na yokku xéewal yi bu baax baax gëna yokku liggéey bi bu gëna yokku man-man bi ak katan gi ak xam-xam bi ba lepp taw feexe lool ci barke sëñ tuba ñi ngi leen di ñaanal bu ne ngeen gëna yokku ba am ay télévision ak radio ci barke Sëñ ci barke Mamadou Asta mi nga xam ne moom la ñuy màggalal tey ji jërë ngeen jëf